attentat du 11 septembre Si vous ci àdduna bi ba nga xam les deux tours jumelles le nombre d'années que nous mel ni loolu mooy la puissance économique bu États-Unis indi na fi guerre Afghanistan bo xamni ci deug deug kenn dootu ko netali waaye nak Afghanistan bu ñuy wax la fa xew dafa am leunk leunk bu ci am ak li nga xam moy le 11 septembre dafa am fi nga xam modi Afghanistan ku ñuy le commandant Massoud qui boo leen ko déggee c'est le lion du Panchir le lion du Panjshir nek jàmbaar jo xam dafa xéxal Afghanistan ba li nga xam modi soviétique yi fa nekkoon dal di genn dal di daw moom mu jël nguur ga jaar ji ki nga xam modi di dal di koy fal ki nga xam modi président commandant Massoud nek ministre de la défense lol ci ber 1989 jëm 1990 la. waye dañ dem ay jamono service secret pakistanais yi ànd ak américains yi daaneel nguuru commandant Massoud sam fa nga xam ñoo di taliban yi ki leen jiite nak nek jëmm jo xamni kenn mus ko teg caméra du ko filmer appareil photo du photo le là Omar Finga nga Afghanistan 96 lañ jël nguur dawal ko nak ba 2001 mu am xew-xew yu am dafa am jëmm ju naan Oussama Ben Laden Oussama Ben Laden boo leen ko déggee saoudien la boo xam ni dafa yàgg lool ci mbirum Afghanistan boobu moo leen doon jàppale mujahidin yi àndoon ak commandant Massoud ban jële fa soviétique yi américains yi doon ko financé ba nu samp fa nguur boo xam ni mujahidin yi ñoo ko dirigé Oussama benn Laden dem ay jamono xuloo ak ñi nga xam ñoo di américains yi jóge fi nga xam moo di Arabie Saoudite dem fi nga xam moo di Soudan Ben Laden cëppeelu Afghanistan ci désert bi def fa base boo xam ni fa la ñu commandé tey lu bëri ba tax 11 septembre boobu ñu ni loxoom mi ngi ci biir waaye laata loolu le 9 septembre ki nga xam moo di commandant Massoud dañ ko assassiné fi nga xamoo ni Afghanistan ci fi nga xam moo di plateau du Panchi ñan ñoo def loolu ñaari caméraman yu ñu yónni woon ñu ñu ñaari caméraman yooyu ay tunisien lañ dañu ñëw pour defal ko interview ci benn télévision bu am doole ci àdduna bi ndekete yu complot la ci lañu faat bakkanam ci attentat le 9 septembre le 10 le 11 mu am beneen xew-xew muy attentat des tours yi nga xamni ci deug deug yéme na fi nga xam modi États-Unis bi ñu attaqué ñaari tour yooyu tour bi ci njëkk ñu attaqué ko 8h45 ci suba dal di koy mbëkk ñu foog ni accident la ñu ni déet na waay bi ñu demee ba 9h3 minutes deuxième tour bi ñu attaqué ko mu melni nak fi nak la ñëpp xamee ni attentat la mu melni yamul fofu troisième avion bi nga xamni dafa juk fan la jëmon Pentagone la jëmon dal di dem fi nga xam modi Pentagone mbëkk ko yàq fa lu bëri indi fa musubu boobu kenn musul gis beneen mbir bi ci gëna graw 4e avion bi da doon dem fi nga xam modi Washington fa la Maison Blanche nek président bi la doon wut fofu nak jotul ag fi nga xam modi di Pennsylvanie la am xex ci bir avion bi avion bi daal di daanu waaye le 11 septembre bobu dafa am taxawaay buñ ci bëgg taxaw mu nek mil mo xam dafa daal di yéme ci chiffre yi nga xam mom lañ leen di wax ki di Bush nak ba xewé dañ ko ni coppet yóbbu ko ci jaww ji George Bush mo nekkoon sen président fekkoon ko fi nga xam moo di fula lit muy waxtaan ay xale ci benn école bu tudd Emma I Booker moom nag daa daw dem ca asamaan sax fa la doon joxe ay directive waaye nag bis boobu nekk na bis boo xamante ni onzième vol muy le chiffre onze buñ bëgg ñu taxaw ci moo nekkoon AA maanaam American Airlines bi nga xamante ni ah mooy vol bi nga xam ni fa la Mohamed Atta nekkoon vol boobu moom moo njëkk a dal ci tour bu njëkk bi Lolo huit heures quarante minutes la deuxième vol bi mi ngi deuxième tour bi ci neuf minutes mu tudé ko UA manam United Airlines 175. soixante quinze que tamit li doy war moy dafa ña def tamit 19 li nga xam modi ay terroristes légui chiffres le chiffre 11 le chiffre 7 ak le chiffre 9 lu tax ñu wax le chiffre 7 chiffre sax dafa nek chiffre bo xamni chiffre bu magique la ba taxna na bu nu gëstoo li xew le septembre bobu li fa yàqu ci ay bâtiment tolluna ci 52 bâtiments lolou boko bolé daf lay jox le chiffre 7 bu ñu jógee fi foofu li nga xam 2996 ci ay doomu aadama ñom ñoo daal di faatu ci xex bobu nga xamni moy musiba bobu boko bolé tamit daf lay jox le chiffre bi ñuy naan 7 ñi nga xam ne nañ ci mbir mom ñu identifié leen toll nañ ci 1600 personnes 1600 personnes len bo boolee tamit daf lay jox le chiffre 7. ñi nga xamante ni dañu cangoon ci immeuble boobu toll nañ ci 1366 personnes yo xamante ni loolu tamit boo ko boolee daf lay jox le chiffre 7. chiffre 7 nek chiffre bo xam ne dafa magique chiffre bo xam ne dafa daal di symbolique beneen chiffre bi nga xam dañ ci taxaw moy le chiffre 9.

buñ démé ci vol bi nga xamni U93 bi daanu fi nga xam modi Pennsylvania daf ni jox ko ci ci doomu aadama yi ci Fatou lu tollo 45 personnes muy 4 plus 5 égale 9. ci biir bâtiment ba ñi nga xam dañ fekk sen cadavre manam, dañu daal di faatu ñooñu ñu ngi toll ci 2700 personnes boko ko mu jox la le chiffre 9 waye mbir mi yamul faul am na ñoo xam dañ leen doon sowee ñi doon sowee biñ xolé manam naka lañ toll ci sen xayma dañu nekk 18 personnes ñoo génn ci immeuble bi lool boko ko tamit daf lay jox le chiffre 9 mu nekk mbir mo xam dafa doy waar waaye fi koy danel nak moy chiffre 11 bi nga xamni mo jaxal ñep ci attentat boobu nga xamni ben la den la wax moko def am ñu juif yi xëy ñoo complot daal di koy def vol bi nga xamni mohammed Mohamed Atta ci la dugg bu njëkk bi 11e vol la won nekkon ci avion AA 11, non le tudd moom tamit li fa dee ci ay doomu adama toll na ci 92 personnes mu nek 11. bu ñu jógee deuxième vol bi nga xamni mom mo daanu fi nga xam moy deuxième tour bi tamit mom tamit bi ko xayma ci ay doomu adama toll nañ ci 65 personnes mu joxat ñu 11 personnes attentat bi am le 11 septembre 9 9e mois

spécial 11 septembre li nga xamni mom moom lañ leen indiloon di leen wax ni 11 septembre bobu dafa yëngaloon États-Unis waaye nak suñu as plus dafa ñuy dugal ci Sénégal yëngal na Sénégal bis bi nak dañ ni Idrissa Seck bekkoon ci bokk Benno Bokk Yaakaar nga xam ni ñoom ñoo àndoon ak ki nga xamoo moo di Macky Sall Benno Bokk Yaakaar ma ngay tasaaroo ndaxte tey lan wax ni Idrissa Seck boo moytul dina waxtaan ak waa réew mi te dina génn ci Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ni jeexi jaaxat dina ci juddu mu nekk opposant boo xam ni moo nar a taxaw nag daal di lëkkaloog PDS ak libéraux yi jàkkaarloo ak ki nga xam moo di Macky Sall loolu la la indiloon ci seen as plus bi nga xam ni tey jii dafa nekk spécial as plus ci 11 septembre ñu leen jox dig daji suba incha allah ci beneen événement boo xam ni fii lay xewe wasalaam